dal ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen. mbokk yi fi teew yëpp suma kilifa yi fi teew yëpp ci kàddu yu gàtt maa leen maa leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di. teg nuyoo bi ci loxol soxna maam Marème mu jàllale ko ci sama bàjjan yeek sama yaay yi fi nekk yëpp sama champion yi kàddu gu gàttu lay doon kàddu cant cant lay doon kàddu kontaan lay doon waaye kaddu mbégte kaddu gi itam espoir bu gën a dëgër ci bi nga xamee ne tey jii weddi ngeen kàddu goo xam ne ñu ngi koy teg ci seen kaw suñu kaw kaw taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp mooy baat bi ñuy wax toog muy dox baat boobu du dëgg amut yoonu murit xamu ko musu koo xam ndax yoonu murit li muy dox lépp mooy fam suuf yi manaakibihaa wa kuluu min rizqi da leen dox ci kaw suuf si di sàkku wërsëg waaye lii ngeen wane du toog muy dox waaye dox muy dox la ndax lii mooy sabab bi te mooy itam a tawakkulu ala allah a tawakkulu ala nag mooy tolloog dox muy dox a tawakkulu ala nag moom mooy toog muy dox yàlla nañu ci yàlla musal yoonu murit bi mu tàmbalee ba fi mu yegsi buñ toogoon du dox lépp ay yëngutu la ay jaar-jaar la ay sacrifice la waaye itam ay détermination la mu ñu àndoon ak sëñ Tuubaa ak sëriñ bi ci boppam ba yegg si fii mu yegg si tey ku ko comprendre nag xam nam sosoo xam fi mu war a dem ëllëg ak fi ñu toll tey waroo toog di gëm toog muy dox wala kon boog boo fekkee da ngaa jàngat li ñuy wax géopolitique ci àdduna bi gis ngeen tubaab yi guerre froide bi ñu nekkee yaakaar naa yéen a ngi dégg sax benn intervention militaire bu war a am Niger xëccoo yi am diggante Russie ak Occidentaux yi corona bi ñu génn bopp sa bopp xew kenn ku nekk war a defar sa gox war a defar sa kër war a defar sa askan ku conscient ci loolu doo gëm toog muy dox kon nañ dox yi muy dox famshu fii manaakibihaa wa kuluu min rizq dox muy dox nag bari na ay défi bari na ay taxaddiyaat bari na ay gàllankoor yu tege sa kaw waaye am na benn waykatu arab bi wax ne maali wali dahri yarmiini wa armihi mm-hmm. wa yashra'u shawka fii darbi wa ajnihi nañ teg loolu suñ kanam loolu mooy lan nee na su ma jugee ba war a dem ci yoonu réussite yoonu teral samay waajur yoonu teral sama askan yoonu teral Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañ may xoole nee day am lu nekk sa kanam lu bari lu ko yàq loolu nag ay dégg lay doon nee na yu ñuy teg ci kanamam waaye dina am fullay am détermination dégg yuñ teg ci kanamam ba war koo tee yàgg fa mu jëm nee na dina am fu lay laxas dindi ko ba mu set wecc soog a continuer yoonam def yi dina bari soxna si fii xamuñu jàppale champion wala championne boo jugalee lu mel nii da ngeen gis gàllankoor yu baree baree baree bari ci ay wax yu ñaaw ci ay di la waaye nag arab dafa wax ne ala qadri ahli al azmi taati al azaimu wa ala qadri al kirami sa kem pas-pas sa kem détermination nee li ngay am noonu lay toll kon na ngeen gëm ni dina metti waaye dina baax nag te lii mooy sagal sëñ waa dëkk bi kenn duñu ko defaral ñoo ko war defal suñ bopp dëkk bi soxla na ay industrie soxla na ay emploi yu ma sëkk yu jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi soxla na leneen ak leneen kon ñi nga xam ne yàlla may na leen pexe wala mu may leen am xel wala mu may leen am jàng nañuy nangoo ñàq ngir ñi ci des jariñu ndax am na ñu amut pexe amuñu njàng amuñu relation ñi ko amagus néew nañ sukkandiku ci loolee te liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci jaamu yàlla yi la laxaal xayra min al jihaad sitt gi ñun ñoo ko war a concrétiser na aw yiw du jógee fu ne di ñëw Tuubaa ñoo ko war a def ci ay usine ñoo ko war a def ci ay taxawal ay liggéeyukaay ñoo ko war a def ci euh, dimbale wàllu sociale ci loolu ñuy lancé ñuy lancé fi laay tëjee suñu mbokku wutkat yëpp commerçant yëpp mboolem koo xam ne dangay jënd ko jaay mooy nañ jëmale suñu mbir ci industrie te bañ a yam ci ubbi boutique rek jël sa ñaari nit ñett nit ñuy jaay say jarbaat léeg-léeg kenn lakk xaalis bi nga dàq ko loolu amul njariñ du ba dëkk bi li ñuy jàmbat naan Touba amutum xëy amutum loolu dafa laaj ay mubaadaraat saxsiya mooy initiative privée kenn duñu ko defal ñi nga xam ne dañuy liggéey di commerce ba am capital ba am ci luñ toog lañu lañ nekk booy jaay ay booy defar booy jaay ay jus fexee la defal usine boo xam ne day defar ay jus booy jaay ay tuyau PVC demal nga def ko ab usine da nga mën a gën a créer emplois sociale bi ñuy def dinañ ko gën a mën a yëg te dina impacter directement ci ménage yi waaye bu ñu sëkkandikoo rek ci commerce jënd ak jaay dina dina dina dina dina néew lool ñu participer li ñu war a participer suñu diggante réew mi informel bi moom fii ak ñu ngi ci duñ jariñ dara ci wàllu impôt waaye itam duñ jariñ dara réew mi ci wàllu créer emploi nañ formaliser li ñu nekk te dox jëm ca te xam na dina metti dina yàgg yoon waaye nag ay ndaw lañ nekkuñu dara in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi billahi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, liñ def nii lu ama am solo la ndax euh, ñun yàlla dafa dogal ñu taxawal kuréel gu ñuy wax assis muy association des commerçants industriels du Sénégal njaboote ay commerçants ak ay industriels Euh, kon tey ñoom ñu ay jigéen di ay ndaw toll ci liggéey am gis-gis bu sori bii euh, dañ leen di encourager di leen wax ne fi ñu teg seen bët foofu la ndax euh, man dama bëgg nit koo xam ne dangay am début maanaam bëgg loo xam ne dañaan lii mënul nekk rawatina nag ñi ko def di ay jigéen yoo xam ne dañoo nekk biir Touba di yëngu ci wàllu jënd ak jaay ndax euh, forum wala foire dafa nekk lu ama ama am solo ndax première fois ñu réussir ko ni yaakaar naa loolu yombul te bu ñu xoolee au niveau international tey ñu bari ñuy tukki jógatuñu ngir dem ci marché bu ñu jógee ci foire la ñuy dem ngir lan ngir mën fa am ay partenaires. kon ñoom bu ñu amee initiative boobu def ko fii ci Touba ñeen ciy encouragé mais di leen ci gunge waaye daanaka jër jëruloon sax may wax ndax euh, sëriñ Abdou Karim dafa wax wax ju ama am solo ci naka lañu war a def ba taxawal ba formalisé wu waaye naka lañ mën a def tamit ba jëngu ci industrie ngir ndaw yi mën a am am xëy ndax am xëy dañuy wax état na jox ndaw ñu xëy waaye état néew na état bu jox ay ndaw waaye industrialisation rek moo mën a jox ndaw ñu xëy waaye tamit ñun ñi nga xam ne ñu dañu dëkk ci dëkk bii di Touba war nañ gën a jàppalante su mën a jàppalante nag mooy képp kuy doomu dëkk bi am produit bu mu mën a doon ñu fexe bay consommer prix daw produit boobu yaakaar naa màggal gii képp kër goo dem li nga xam ne moom lañu war a toggee ganalee ko gan ñi mooy huile binta ndax doomi dëkk bee ko moom investir ci muy produit bu baax kon waruñu dem di jëggani benn jëggaani benn produit mm. bu produit boobu waaye loolu ñu yaatal ko tamit ba ci képp koo xam ne doomi dëkk bi nga rek am produit boo xam si ne yaa ngi koy commercialiser ñu jàppale la ci di jëflante ci sunu biir jëflante bu rafet loolu mooy dimbalente te dëkk bi dafa nekk dëkk boo xam ne lépp lu fi waaye jëmbal rek ci aw yiw dina sax te dina meññ te dina barkeel yaakaar naa fan yi kenn ku nekk gis na yëngu-yëngu bi nga xam ne am na ci réew mi boo demoon Dakar tey nga dugg Sandaga da ngay gis yëpp dañuy tëj waaye tey liy dox ci économie akus akus néew ci ci réew mi Touba gi lay jóge Touba gi lañ ko yaakaare kon euh, jàpp naa ni suñu jigéen ñi dañ leen gën a gunge gën leen a jàppale surtout ñi nga xam ne ñi ngi góor góorlu di fexe bay am seen ay marque euh, ñu fexe ba sponsorisé leen accompagner leen gunge leen ba nga xam ne dinañ mën a am satisfaction ci seen bis bi waaye ak ci yeneen bis yi nga xam ne mi ngi ñëw li may wax nag dama koy wax ci turu commerçant yëpp ndax assis bi mu taxawee li ñu wax mooy fexe ba commerçant bi lépp loo xam ne ay jafe-jafe yu muy dund la ñu mën ko cee taxawu ba jafe-jafe yooyu wàcc ko waaye lépp loo xam ne lu koy jëmale kanam la ñu fexe ba accompagner ko ci loolu mu jóge ci informel dem ci formel waaye jóge ci formel dem ci industrialisation dem ci industriel ndax industrie ak euh, transformation ak euh, ak agriculture ñett yooyu ñoo lëkkaloo te yaakaar naa ni Sénégal su yàlla may nañu suuf su yaatu may nañu ay ndaw may nañu ay boroomi xam-xam may nañu ay boroomi xel samp ay industrie fexe ba taxawal ay euh, usines yoo xam dana mën di transformer li nga xam ne mooy produit yi fiy ñor je pense que kon loolu dana mën développement boo xam ne bu gaaw a gaaw la ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm euh, DG Cheikh Mbaye Guèye moo waroon jël kàddu sax waaye ne ma yow boo waxee rek wax nga mooy ci suñu tur waaye man bi sëñ bi euh, Abdou Karim waxee rek mën naa ne wax na ci turu commerçant bi waxal na ma daanaka jërutoon may wax ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp wuy si ñu ci bis bi nga xam ne initié nañ ko bis bi nag maa ngi ko bokk ak euh, soxna Jaara Mbàkke moom sëñ Moustapha Massamba ak euh, soxna Faati moom sëñ Thierno waajuram ñëw jëmmal bis bi mi ngi nee toog soxna Moomi Fall soxna Faati Mbàkke mu sëriñ Samdulo mu sëriñ mu sëñ Fall mu sëñ Samdulo ak soxna Asietu mu ngi ci yoon bi di ñëw ma commencé présentation bi ci soxna Jaara Moustapha di doomu sëñ Moustapha Massamba macha allah jàng la mu war a jàng ci loxatal arabiyatu dégg lam ca war a dégg pare takk ndiggam liggéey ak jaamu yàlla ñu xam ko ci continent yu bari mu nekk commerçante bu mag macha allah dama koy tooñ ne ko buñ ne ko loo ko laaj macha allah ne ko wutal ma loolu mu wut la ndax takk gum takku ak bëgg gum bëgg liggéey boo ne ko woon tey maam nii laa bëgg rek waxal sa soxla rek dana fexe ba wutal la ko ak fu mu mën a nekk ci àddina nangu gu mu nangoo liggéey ak bëgg gu mu bëgg a liggéey mu teel a xam loolu jël la ca waajur wa baayam teel ko caa dimbale teel koo jàppale ba tax mu jël li nga xam ne tur wi nga xam ne moom la tuddee soxna jaara turandoom muy Porokhane business ñu xam mu am ci ñaari euh, adresse mu koy defee Dakar ak Touba bi ñu defee bis bi ànd ko ak ñoom mu doon ci jàmbaar lool fës ci lool nekk ci bâche bi ci domaine boo xalaat rek nekk na ci pour bis bi am man a am réussite bi tey ku mu xam ne mën na cee jàpp rek def na ko loolu doyu ko mu ñëw nekkaat sponsor bi mu nekkee ci bokkee ci collaboratrice yi ba noppi dafa ñëw nekkaat sponsor ne dama leen di jàppale kon ñoo ngi koy sant di ko remercier soxna Fatou Mbacké nekk agent aéroportuaire euh, à l'aéroport à l'aéroport international Blaise Diagne moom tamit macha allah bàyyi liggéeyam di def lépp sept lay yeewu jigéen ju man góor la sept lay wàcc fa muy liggéeyee bu wàccee sept ñu continuer nekk ci toog na trois jours yoo xam ne daanaka gëmul bët gëm liggéey moom tamit mu taxawal entreprise am muy Chic and Glam by Latifa soxna Momi Fall macha allah bu ngeen ko gisee ak ni mu taaroo rek xam ne lépp moom la fii ñu ko defee moo ko lijjanti problème buñ ci nar a am ci dëkk bi rek moo ko lijjanti loolu la Baye Fall di jariñ ci biiri Mbàkke Mbàkke mu taxawuñu lool nag jàppale ñu te ku ne xam na ne état de santé mayu ko ko waaye ñoo koy njëkk a tëdd moo ñuy njëkk a yeewu ñu koy remercier jàppale ci di sant soxna Faati mi nga xam ne xelam rek la am danaa man mënumaa wax waaye ku ma xalaat ne su ma leen ko waxee bu ngeen ko waxee idée bi dana leen ci ñaanal wala mu jàppale leen ci dinañ ko def li may wax ci soxna Faati moom laay wax soxna Asiyetu soxna maam Mariam Mbàkke auditeur contrôleur à l'institut de prévoyance retraite du Sénégal IPRES man tamit ñu teel a xam ñun ñëpp ne liggéey rek mooy dara comme ni ko sëñ Abdou Karim waxe liggéey rek moo am solo te luñ ñu jox ci liggéey rek xeeb nañ ko loolu moo tax bi ma nekkee agent cadre à l'IPRES ma ne ah mankat kat kese liggéeyal IPRES dëgg la liggéeyal sama réew la rek doyul waaye damay nekk entrepreneur ma entreprendre sama ay activité bii njëkku ci ubbi woon naa fi restaurant bu ñuy wax best food def ci financement boo xam ne 16 millions de francs CFA la boobu sama waajur mu ngi dund bi nga xamee ne bi ma koy tëj récupéré wu ma sax 3 millions bi ñu ma waxee ma ne j'ai pas échoué j'ai de l'expérience restaurant ubbi na Amérique tëj te ñoo ñoo ma ëpp matuwaay ëpp na ëpp ma lépp restaurant ubbi na Paris tëj te ñoo ma ëpp ressources humaines ëpp ma lépp kon su ma ubbee tëj du échec mais expérience laa am loolu moo tax bi ma duggaatee ci dëkk bi façon restaurant bi ma def man maa ko njëkk a def fii Touba bi ma ñëwaatee jaar ci 28 bi gis restaurant damaa ree ma ne alhamdulilah li ma bëggoon man réussir ma ko waaye ñeneen réussir nañ ko à travers man. kon loolu moo tax du ñu bàyyi toujours ñuy jéem a entreprendre di booloo di liggéey idée bii damaa toog toujours damay wax soxna Fatou nañ def lii nañ def lii moom mu woo ma maam ma ne ko waaw mu ne ma duñ def dara ma ne ko lan la ñuy def mu ne ma nañ def benn vente privée fii nii sax Dakar. ma ne ko dakaar moom girl town yi wala boy town yi occupé nañ ko ba pare nañu dellu ci suñu dëkku maam ba mu wax ne lu ñuy gis lu baax wala lu ñu mën a naw bu demee Touba danañ ko bu nee gis tuuti danañ ko fa fekk kon nañ def noonu te soxna Faati mu ne ah ma ne ku ni séntu naan ma nga nee dangaa war a weex tàll ndax nga yomb a gis kon nag nañuy jël suñuy idée ak suñuy projet ginnaaw bi nga xamee ne ñun damay wax ñun jigéen kilifteef rek ci la ñuy dëkk fu ñu toll dañuy yilif bu nu màggee bu nu juddoo suñuy waajur moo nu yilif ñu màgg suñuy borom kër ñu màgget suñu njaboot kon ñun duñ mas a libre bi ñu amee idée boobu ma ne ko foir la ñuy def te Touba lañ ko defee mu ne ma ah maam foire lii foire ma ne ko wax la ñuy def te incha allah dina réussir mu ne ma kon léegi ñaara man kenn te ñett du bëri duñ ci wéet nañ xalaat ñun ci war a àndal xalaat soxna Jaara Moustapha heure bii normalement waroon na ko fekk mu génn ndax ay activité am boobu ba léegi voyage am yëpp daf ko freiné ànd ci ñun liggéey bi comme ni ma ko waxee sànq ba mu agsi fi ñu agsi kon ñoom ñëpp ay femme de valeur lañ maa ngi leen di sargal ndax lii man kese mënuma ko woon xëy na amaana defoon naa loo xam ne sama xalaat fam ca tolloon peut-être réussir ma ko entre guillemets mais bi ma defee lii woo leen tàllal leen ci loxo ñu wuy si ma ci ak niñ ma ci wuy man liñ ci daj sax man dajuma ko ci kon maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax bi ñu amee idée boobu nag ba noppi ba déggoo ci dañu ne dañoo am kilifa dañ ciy waxtaan ak suñu kilifa may nuyuwaale di ziar sama borom kër sëñ Xaadim Mbàkke bu sëñ Moustapha Bachir bi ma ko ko waxee mu rafetlu ko étudier idée bi ñaanal ñu ci ñu dem ñu génn foofu dem ci sëñ Ahmadou Mbàkke moom sëñ Moustapha Samba mi euh, jëwrinu sëñ Mamor ma Samba soxna jaara dem ko waxtaan ak moom ci idée bi mu ñaanal ñu ci yebal fii ay représentant muy sëñ Xaasim Mbàkke ak sëñ Fàllu Mbàkke ña nga toog ñu ñëw jëmmal ñu ci bis bi bañ jógee ci loolu ba am ndigal ci suñu biir kër ndax comme ni ñu ko sëriñ bi sante dañoo dem gis sañ sëñ Muntaxa xeebuñu benn yoon mu dégluñu ne lan ngeen bëgg a def ñu wax ko ko mu ñaanal ñu ñu pare dem ci soxna Baali mu dalal ñu comme ni ni ko ñëpp xamee kooku moom marraine nationale la ku def dara ci Sénégal boole ko ci waxuma laa fii ci Touba mu sonn ci jàpp ci nit ku mu xam ne mënal nañu dara woo na la ci saa si ci sunu kanam lu nekk mu def ko ba boole ñu faak ay nit yoo xam ne seen jëmmal gun jëmmal bis bi ak luñ ci def bokk na li tax réussir bu mel ni am ñu ñu jóge ci soxna Bali soxna Walimata Kebe mu sonn ci bis bi lool fexe ba ñu gis sëñ Bass Abdou Khadre gis bu neex macha allah gis bu feex sañ Bass tamit vidéo yi publier nañ ko ñëpp gis ko ñaanal ñu gunge ñu jàppale ñu ci zahir ak ci baatin luñ mën a wax ak luñ mënul wax te lii rek firnde la ci wax ak sëñ jiili mi mu ubbil ñu bërëb bi nga xam ne lu mel ni kenn mësu ko fi gis waaye nag li tax mu sawar ci dañu ko defee ci anam boo xam ne yéen ñëpp gis ngeen ko ci nit dëppoog condition dëkk bi ni sëriñ bi bëgg mu mel noonu rek lañ ko defee ñuy sant sëriñ jii Jili Ñaang mi nga xam ne ci baatu moom bi Fall moo ñu yombalal fii bañ mën fi def lii tey ñuy sant tamit sëriñ Basiiru Mbàkke Xaadim Awa Ba facilité nañu bu baax ci yenn kilifa yu bari jàpp na ci bis bi di sant sëriñ na bu ñu ñaanaloon yem ci rek dafay doy waaye dafa ñëw ànd ak ñun bés bi ñu sant nag kilifa gi nga xam ne mooy kilifa administratif bu goxu Touba bi ñu nekk muy monsieur le maire Abdou Lahad Ka moom tamit soutenir nañu ci bis bi ndax ku ne xam na ne biir kër sëñ Touba gi mooy li nga xam ne euh, ñi nekk ci ñi nekk ci liggéey boobu ñoo ko yilif waaye li dem ci biti rek day laaj commune bi ñu demee démb am ñu ñu doon laaj ak ñu bëgg a teg dafa ne yëpp nañ bàyyi mu jàll sant di sant ki nga xam ne tamit mu nga ca mairie ba di honorable fari Ndiaye bu jàpp lool ci bis bi moom tamit ñoo ngi koy remercier ci présence ak ci li mu def ak lépp. dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen.